ku sopp sëriñ saaliw mbakke ku mu fal boo yeboo tëddal na la wal li ma xam ci moom ku ko xam boo wayul ka ñaana la ngoy bokku julli yi bokki talibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullah bokk yi may leen ma nopp ma baaxe leen barab bopp lépp lu ngeen yittewoo ci bagaasu murit bu ngeen ñëwee fekk ko fa mag tabatul sëriñ saaliw mbakke yàlla nañu ko yàlla fayal ci yoonu juga kebe kër sëriñ abdoulaye jaxate jàkkaarloo ak kër sëriñ ahmadou maxtaar digganteem ak jumaa ji di ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk gérant jaxate ñu ràññeeko lool mu yàgg yëngu lépp lu jëm ci xasida alxuraanul karim ak bagaasu mburit mbokk yi ay kaamilu alxuraan yu ñu mool ci moolin wu mucc ayib kaamilu sëriñ Amidun loobi bi kaamilu sëriñ Abdulahat mu sëriñ Soyibu kamilu sëriñ As Jaxate ak kaamilu sëriñ Elage Mbàkke kaamilu sëriñ Malik Si mbokk yi diwaanu xasida yi nag bàyyi nañ ko xel lool daaru minam xasayit sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ bu sëriñ Elage Mbàkke ak Asnal Xaddiim téere xam-xam nag mbokk yi bàyyi wuñu ci lenn mbaxana kala kurus maxtuume ak ay dàll yu mucc ay prêt-à-porter it bàyyi nanu ko xel simisi ala ji nga bëgg jàllaabe baylaat wala sëriñ son yi bu mbokk yi bagaasu mburit bàyyi nañ xel lool parfum ay parfum de classe ak parfum yoo xam ne nit yu diine yi yitte woon nanu ko lool xeetu cuuraay yépp it am nanu ko faso liban hut xeetu cuuraay yi ñaankat yi yitte lool ndoxum sam-sam ba ci lem yéen ñi nga xam ne da ngeen toll ci bind alxuraanul karim lépp lu ngeen di yittewoo ci jumtukaayu bindkat kaamil ba ca xalima ba ba ca daaja ba ca këyit ga bàyyiwuñu ci lenn machine buy plastifier ak machine photocopie am na ca barab ba ay son nag son yu am maanaa mp3 clé usb cd lépp loo ci yittewoo waxtaanu sëriñ sàmba yi tomb sëriñ tuba yi jàngum xasida yu mucc ayib te am maanaa archive nag yor nañ ci lu wér te wóor barab bu mucc ayib yees tàq ak bagage yu yees tàq macha allah jokkaloo nag ñoom ci 77 254 54 16 wala ci 70 612 70 70 wala ci 33 978 90 24 64 wala ci 76 889 63 49 librairie papeterie Serigne Saliou Mbacké mbokk yi ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéwal. ku sopp Serigne Saliou Mbacké ku mu fal booye boo tëddal na la wal li ci moom ku ko xam boo wayul ka ñaana la ngoy Serigne